Salam la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. La leçon qu'on doit expliquer aujourd'hui, il concerne ce qu'on appelle la phrase verbale et la phrase nominale. ginnaaw bi ñu bëggee euh, gëjee def li nga xam ne moom mooy vidéo tey euh, ñu décider définitivement continuer la présentation des vidéos françaises surtout Euh, la grammaire lay concerné donc tey ñëw euh, ci euh, li ñu tuddee mais phrase verbale la phrase nominale donc lan mooy seen définition lan mooy seen rôle à la définition de la phrase sax la phrase est une suite de mots qui a un sens constitué un ordre grammatical correct et qui permet la transmission d'une information une phrase commence par une majuscule et par un point de ponctuation France benn suite la mooy ay baat yu ñu tegale yoo xam ne dañu am benn maanaa ñu euh, tëgg leen ci kaw benn ordre grammatical bu teg ci naxu bu wér bu normal waaye xam day yombal nga toxal benn information jàllale benn information donc benn phrase sa day commencé benn majuscule benn ak lettre bu mag lay commencé di jeexee benn point de ponctuation mu lay jeexee comme ni ko gisoon noonu entre exemple il revise ses leçons day jox ay leçon kaltaam ñu fi kaax comment résoudre ce problème donc lii quelques exemple la ci euh, li nga xam moom mooy phrase def naa ni ànd naag euh, caractère yi nga xam moom la àndal euh, muy point et ak li nga xam ne mooy majuscule hmm. la phrase verbale mooy lan une phrase verbale est une phrase qui est organisée autre d'un verbe conjugué un verbe noyau benn phrase verbale benn phrase lay doon boo xam ne ko organiser ci wetu benn verbe ci verbe boo xam ne dañ koo conjugué maanaam ñu tuddee verbe noyau fenn nawaat da tudd verbe verbe waaw maanaam jëmmi phrase bi pour mu nekk phrase verbale faa mu am verbe boo xam ne ko conjugué su amul verbe conjugué kon duñ ko tuddee phrase verbale mais au contraire phrase nominale exemple cette voiture est très rapide oto bi dafa gaaw loolu phrase verbale la parce que am na li nga xam ne moom mooy verbe conjugué muy verbe être fermer la fenêtre kon am na li ñuy tuddee phrase verbale la parce que am na verbe boo xam ni ñu ko conjugué bi lool maanaam leer na ñu ci la phrase nominale une phrase qui na contient pas de verbe conjugué est une phrase nominale on l'appelle aussi une phrase non verbale benn phrase boo xam ni amul verbe bu ñu conjugué moo ñu tuddee phrase nominale dañ ko tuddee ba tey phrase non verbale hmm, kon lu nekk phrase no verbale phrase nominale lay doon lu nekkul phrase nominale phrase verbale lay doon d'accord magnifique de cette équipe kon loolu la parce que gisoo fi verbe conjugué trop tard phrase nominale parce que gisoo fi ah, verbe conjugué bonne chance dama ne phrase nominale la parce que gisoo fi verbe conjugué hmm. trop bi bu ñu ñëwoon c'est trop bu baax day nekk. bafaraas verbal mais dañ ne trop tard kese kon nominal la defe kon loolu leer na euh, tout simplement exercice kon distinguer les phrases verbales des phrases nominales phrases yi nga xamante ne si ne ay phrases verbales lañ génne leen ci nga xam ni ay phrases nominales lañ ràññeel fii li nga xam ne mooy phrase verbale ak yi nga xam ne phrase la exemple tempête chien méchant te vous comme ces curia quelle jolie souris il n'y aura pas beaucoup de temps kon foofu yaay génn li ci phrase verbale ak li ci phrase nominale loolu kon ni ci yàgg defe naa yomb na lool fi mën a transformer sa phrase non verbale en france verbale phrase yi nga xam ni nekkuñ france verbale jël leen nga leen ci phrase hmm, phrase verbale fekkee phrase nominale la ngay mujj phrase verbale fekkee verbal ngay mujj nominal arrivé cycliste demain à 18h très bien interdiction de passer découverte d'un trésor à la grotte kon loolu yomb na lool fi mu transformé sa phrase verbale en phrase nominale phrase verbale yi ngay wëlbati yóbbu leen ci phrase nominale un bâtiment vétuste a été démoli kon loolu yaa koy jéem sa bopp ko di ko wala ñëw ci ay kenn ku indi li nga xam ne mooy correction d'exercice bu dee exercice 1 mu ne noonu distinguer les phrases verbales des phrases nominales correction d'exercice moo nekk noonu deuxièmement transformer sa phrase non verbale en phrase verbale deuxièmement kon correction mi noonu leer nañ troisièmement mi noonu transformer sa phrase verbale en phrase nominale kon correction baa ngi noonu événement vétus a été de bâtiment extra extra kon defe naan loolu leer nañ ñu bàyyi nga chiffre ko euh, istiaab ko comprendre ko d'une manière pacifique claire di la wax jaajëf ba beneen yoon di wax nga abonné fekkee abonné ko te partagé ma vidéo bi danga bés tam commentaire positivement